déjà euh, lan nga jàpp ni tey moom moo war a nekk la clé euh, de la victoire pour le Sénégal. bon maa ngi lay ay Aïcha euh, tey Sénégal ci 17h. dana mhm. jàkkaarloo ak ak Guinée. mu nekk derby derby entre entre voisins gis ngeen démb sax suñu mbokku journalistes yi xaw nañu chauffé ci seen salle bi donc xaw nañu histoire tuuti. Mhm. pour dire que match bi dafa nekk match boo xamante ne am na am na enjeu. parce que enjeu bi c'est c'est la première place du groupe. mais enjeu bi aussi c'est ci biir euh, sous-région bi quand même euh, domination Sénégal il faut ñu ñu mën ko ñu mën ko accentuer maintenant le reste mooy euh, match tey bi nuñ ko war a nuñ ko war a aborder mais concentration. concentration il faut il faut beaucoup de concentration dans ce match parce que c'est c'est un genre de match piège xam nga nga am nga am six points ki topp si yow am quatre points. Mhm. donc soo amul concentration ci li ngay def rek soo moytul moom mën na la gagner nga jël deuxième. Mm-hmm. donc il faut beaucoup de concentration continuer dans la logique de victoire bi ñu bi ñu am ci deux matchs yi je rappelle que euh, si histoire CAN ci dernière décennie yi euh, équipe Sénégal musta démarrer nii. mosul la démarrer non ci dernière décennie yi euh, dernier résultat yi ñu amoon c' était ko yoo xam ne mel na ni c' était contre euh, en c' était en 2002. bi ñuy mm-hmm. démarrer avec deux victoires. Mm-hmm. mais boo xayma. avec des victoires étriquées. 1-0 donc 1-0 1 def na euh, Égypte Zambie. Mm-hmm. Égypte Zambie après ñu match nul ak ak Tunisie 0-0 non boo xayma ci décennie yi mujj yëpp. Euh, la, la première fois en tout que Sénégal démarre une CAN en match de poule ak euh, ak deux victoires six buts marqués un but encaissé donc Belle ça il fallait, il il faut le souligner mhm. bon on parle de la génération de 2002 comme la meilleure des générations mm -hmm. mais là la la ces garçons quand même euh, ils ont réussi loo xamante ne c'est une première li koy li koy li koy li koy expliquer un peu mooy euh, ñoom dañu démarrer 2012 cette génération la mhm. di dem di daanu di am ay défaites ay victoires di am ay naxar tey y a une recomposition ci équipe nationale Pape Malick ñu ngi doon wax keroog y a une mm. recomposition maintenant xale yi ñëw avec le talent dañu fi fekk ay mag ñu gunge leen 2002 c'était une seule génération bu génn. waay euh, de ñu ñëw 2002 ba 2012 ñoom Sadio Mané génération boobu génn euh, Gana Gueye et cetera ñoom amuñu woon daanaka mag. Mm-hmm, bu leen accompagner yu leen mm-hmm. la force de cette équipe là mooy yaa a des jeunes aux dents longues. ak ay mag yoo xamante ne vraiment mag yu. donc il y deux générations. il y a deux générations yoo xam ne moom moo daje ci ci ci équipe bu Sénégal bi. mais tey ban prestation ngay xaar ci xale yi. non euh, logique de victoire waxoon naa ko waxoon naa ko fii euh, bee passé quand tu es quand tu veux gagner une coupe d'Afrique il faut être dans une logique de de, de victoire. maintenant euh, match yi mën na indi leneen ci ci terrain bi. mais mhm. nga nekk dans cet état d'esprit là daf lay daf lay permettre nga aborder vraiment avec sérénité. la la la compétition je crois crois que euh, Aliou Cissé quand même. Mhm. il en est je crois à sa quatrième CAN su ma juumul deux mille euh, deux mille euh, deux mille dix sept la jël équipe bi donc il a assez d' boo bu koy permettre mu mu euh, wax xale yi pièges yi ñu yu war a éviter ci match. D'accord.